ñoo ngi sant yàlla julli ci yonent bi aleyhi salaatu salaam ñaan yàlla sunu cofeel ci moom sunu cofeel ci yonent bi yàlla na yàlla sàmm ko yàlla na yàlla dooleel ko yàlla na yàlla saxal ko dàq ci suñuy xol ñu bëgg dëgg dëgg sayidina muhammad alayhi salaam bala daloon ibnu nu'maaniya ca xasidam ba moo waxoon ne wa bi xaqi jaahika inna nii laka mahramun wallahu yaalamu annani ahwaaka loole yal na nu dal te mooy wax ni géñ naa ko ci barke ci sa barke daraja yu yonent bi naka man mii di wax ak yow ku ñu xiirtal laa ci bëgg la te nag wallahu yaalamu annani ahwaaka waaw mu wax ni yàlla yàlla xam na ni yàlla xam na ni ni man mii di wax ak yow bëgg naa yonent yàlla alayhi salaam am na sax ku wax ni wallaahu yashhadu annani ahwaaka ku wax ni yàlla seede ni sama cofeel ci yonent yàlla Muhammad alayhi salaam mbokk yi yàlla na nu dem ba toll foofa ci nan ci yàlla dem ba yëg ni ñun bëgg nañ Seydina Muhammad alayhi salaam ndax bëgg yonent bi nag mbokk yi mooy sunu defaru tey ak ëllëg bëgg yonent bi mbokk yi mooy sunu sécurité tey ak ëllëg mbokk yi bëgg yonent bi mooy sunu puukeeru bëgg yonent bi mooy sunu sakk bëgg ko mooy sunu ndam bëgg ko mooy sunu mucc bëgg ko mooy sunu teddange waaye bëgg ko mooy sunu teraanga kon yàlla ñu yàlla def ñu bëgg njool màkka mbëggeel goo xam ni day day day law ba faw ba ëllëg ñu daagu nag ànd ak moom dugg aljana incha allahu taala seen soppe seen xarit Mohamed Dabakh Cissokho ci seen émission xubbu nabi alayhi salaatu wa Euh, fii ci Kër Ndanane TV ñu war a waxtaan ak yéen lenn ci cofeel ci bëgg yonent Yàlla Muhammad alayhi salaatu wasalaam waaye balay loola dañuy nuyu bu baax kilifay diine yi kilifay aada yi jiital ci nuyoo googa sëriñ Babacar Sy Mouhamadunil Mansour xalifatul am di tarixati tijaniya nuyu ko Pape Maodo Sy sunu baay ju tedd ju baax jooja ñu nuyu ko sëriñ Babacar Sy Abdoul Aziz da baax ñu nuyu ko waaye nuyu Pape Mansour Sy Dabakh nuyu njabootu sëñ Babacar Sy radiyallahu taala anhu nuyu mbooleem njabootu Cheikh El Hadj Malick ñu nuyu leen ziyaare leen ñaan yàlla defal nu jàmm waaye nuyu sëñ Muntaxal Bachir noone nuyu ko nuyu mbooleem njabooti maam Cheikhil Khadim nuyu sëñ Modou Mbacke fi ci Tiwaawan Pël ñu nuyu ko ziyaare ko waaye nuyu bu baax sama soppe sama xarit sëñ Moustapha Salihu Mbacke ñu nuyu ko sama sang booba ñoo ngi kaa nuyu ziyaar ko waaye noonee la ñuy nuyoo euh, tabarakallahu sëriñ Seydi Mokhtar euh, tabarakallahu fii ci jàmmalaay nuyu bu baax waa Njaasaan Canaba nuyu bu baax a baax baax waa fuuti yu taal sunu mbokk sunu maam yooya nuyu mboolem kilifay diine yi mboolem kilifay aada yi kenn ku ci nekk fekk nañ la fi nga toog ne la jàpp loxo muy loxoy xol ne la asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu waaye nuyu nag sama sëriñ sama soppe sama wasila sama xarit sama baay muy cheikh Ibrahima Ndiaye Khalil mu yaa faama mu ma alxaaji Soose Ndiaye ñu nuyu ko ziar ko tey mbindam la nu jël bëgg ko waxtaane len nag ci lu mu wax ci yonent Muhammad alayhi salaam nuyu mbooleem njabooti ma alxaaji Soose Ndiaye ñu nuyu leen bu baax waa kër Baye Omar Socé njaay ñu nuyu ko nuyu leen alxalifa Seydou Ousmane ñu nuyu ko bu baax waaye nuyu mbooleem njabootu Mame Alxaaji Socé yëpp fekk nañ leen fi ngeen toog jox leen suñu xol nuyu leen mbokk yi tey ki nu jël mbindam bëgg ko waxtaane wax nañ ko léegi mooy Cheikh Ibrahim cofeelam ci yonent bi moo nu mëdd ba tax tey seen émission xubbu nabi ñu jël lenn ci mbindam xaaj ko ñaar jël première partie bi bëgg ko waxtaane mu gis ni jamono toll na foo xam ni ku bindul ci bi bokkoo ku soppul yonent ba la ëllëg yomal xiyaama ci fii ci àjjana sax laay wax doo mën a defaru bay defare wax ni ko amul cër ci bi doo mën a jubal benn nit kon mbokk boo bëggee jubal benn nit maanaam boo bëggee jubal mbooloo boo bëggee jubóog sa boroom foo nga am cër ci yonent Yàlla Muhammad alayhi salaam moom nag cër bi mu am ci yonent salaam ak na mu toll ci moom ci cofeel na mel ci moom ca mahabba loolee tax mu mun a defar mbooloo ndax cër bi mu am ci yonent Yàlla Muhammad alayhi salaam moo ko may loola mu gis ni itam jamono ngi ñëw buñ leen buñ leen yow yow Cissokho kuy sa sëriñ nga ne man kat Cheikh Ibrahima mu yaafaama moom xaaj soose mooy sama wasila nga ni ana lu mu wax ci bi ngay dig digal di xoole kon booba sa sëriñ dañu naan amul cër loolee la xam ba tax mu dikkeek ñun ci lii mu wax ni fa ya ajaban uluhumun maal gazaami in kaana jaamida aqli bilaw fikri aw salaatin aw matxin aw baytin min almuxtaari lqidami fan nga yëg ni yaa ajaban woo naa kéemtaan woo naa yéemte ulumun gu am nekk yeddange maal xazaami yeddange goo xam mi gàcce la waaw de kemtaan dal na ma de yedde yeddeef dal yeddeef dana ma dal de gàcce dana ma dal ñu ne ko moo ci lan mu ne in kaana ndeem nekk na jaamida aqli di way sama xel al aqli sama xel di way jaamida aqli sama xel mi di way waaw sama xel mi umu sama xel mi tëju ba sax ba sax bilaaw fikri mën a maa xalaat aw salaatin lu ci mel ne ay salaatu ala nabi jëmee ko ci ñun njol màkka ñu ne ko lan mu ne aw matxin ay tagg yu sell yu neex yu barkel yu yaatu jëmee ko ci moom aw baytin ay abiat yoo xam ni sagg naa ko tagg ci yoon ca Muhammad min al muxtaar il xadami ci ki nga xam ni yàllaa ko tànn ci lu njëkk waaw ci ki nga xam ni yàllaa ko tànn jiital ko ci booba ci booba booba yoon ca la aadama mi ci digg ca ndox ak ban waaw wallahu alamu annani ahwaaka waaw kon cofeelam ci bi yàlla yëg na ko moom Cheikh Ibrahim yàlla yëg na cofeelam ci bi ba tax mu mën a am cër defar li mu li li ko yàlla dénk dégg nga mu ni gis nga ndeysaan ako ñoo baax ci way waxut ak boppam de ñun lay wax ñun njabootam waaw mu ne qasatu ilayhi bi saami muhammadin an yasqi bi qawdihi wal muslim wal muslimina turan wal muslimati ahli bi xurmati li xadami mu ne jublu naa nag waaw ilayhi jëm ci yow yow al muhammad bi saami gu ànd mar xunduñ mar gu taar waaye nag an yasqi dana ma nandal bi xawli ci sa dégg gi yow yonent Yàlla Muhammad waaw waaw maa jublu naa la de jëm naa ci yow de jublu naa la de jëm naa ci yow waaye maa ngi ñëw maa ngi ànd ak mar xondoñ mar goo xam ni dem naa ba tabarakallahu mar gi xaw ma fu ma toll waaye nag nandal nga ma bi xaw di ci sa dégg yow yonent Yàlla Muhammad yemoo ci nandal ma wal muslimina turran wal muslimaati ahli waaw mu ne ñi ma am waaye sellal ñu góor ñi ak waaye sellal ñu jigéen ñépp tey sama ñooñ nandal leen ci sa dégg yow sayyidina muhammad alayhi salaatu wasalaam moom la yàlla ne inna a'taynaaka al kawsar fasalli li rabbika a inna shahnika wal abtar yow daal yonent yàlla muhammad képp ku la bëgg ba dee ak moom ëllëg yawmal qiyaama di nga ko nandal ci sa dégg hudan kawsarun qad qasullahu kawsarin bihi yantafi yawmal qiyaama la sama maam Cheikh El Hadj wax ca laam ya bihi xaw kawsarun qad qasullahu kawsarin dégg googa nag la sang bii di wax nii nandal na ma ca ba mu maree ba mar xundóoñ nandal na ko bul yem ca nandal ko waaye nandal ko nandaaleel ñu ñun ñii ak mboolem jullit ñu mbokk yi ba tey de ba tey de ma ngay wax moom sang bi nee na ak tram bi man saara mawliduhu aydun li kulli jinsin min al anami muhammadul muxtaari nabiyul ummami bal huwa saaxibul alami allahu akbar déggal yi sadd yu neex ah, bilaw fikri aw salaatin aw matxin aw baytin ma ngi koy wax de mu ne kirim wiiw teraanga bi man ci waa ji nga xam ni saara saara mujj na lan mawliduhu juddam ga du li kulli jismi min al ama min al di feet ñun dulit ñi wa mawliduhu bihi sharafun waqir fa fi tanzimi in jaawul sujun li samam Cheikh Alhaaj Malik wax kul sëtam ba sëtam ba daf ko feelu ca waxam ja wiwuk teraanga ci waa nga xam mi ganeeg jamonoom ga mujj naa nekk feet ci mbooleem luy mbindeefuk jullit ñi waaw xoolal gàmm gi jàll na xoolal lim nekke woon feet ci mbooleem luy jullit ngir màggal ganeeg jamono njool màkk mu ne kii ñuy màggal juddoom wa ki nga xam ni ganeeg jamonoom ga mujj naa nekk feet ci mbooleem jullit ñi mu muhammadul muxtaar mooy muhammad mi yàlla tànn mooy nabiyul umma mi mooy yonent bu xeet wi xeet mépp mooy seen yonent moom lañu yaakaar bal moom yonent ci al muhammad woo saaxibul alami mooy borom màndarga bi fu ñu noddee fu ñu noddee bay daaneel da nga dégg turu yoon ci muhammad gannaaw bi nga déggee laa ilaha illallah loo cay teg muhammadun rasulallahi sallallahu alayhi wa ah kon bal huwa saaxibul alami mooy boroom màndarga bi nag moom njool màkk alayhi salaatu wasalaam mu ne ba tey ak rim wi wug teraanga ci biiman ci waa ji nga xam ni sara rañaanal na ko kan boroomam layatal xayri li diini diinan allahu akbar waaw mu ne waa ji nga xam ni yàlla moo koy rañaanal yàlla moo koy yëkkati yéege ko inde ko ci moom waaw yàlla koy rañaanal de subhaanallazi asra bi abdihi laylan waaw yàlla moo koy rañaanal moom yoon ci al muhammad alayhi salaatu wasalaam asra bihi llaahu tashrifan li mikmatihi xata raa min ayihil jusumi kon sa tëm ba na maamam ja Cheikh El Hadj Malick ci mbindam mii mu nag yàlla moo rañaanal yoon si yàlla ngir yiwte ga waaw waaye nag ngir ngir yéega ci martabam yoo xam ni kenn mësu faa yegg ci tedd nga yoo xam ni ci texe yoo xam ni kenn mësu faa yegg xataara a mara amin ayil jusum mi ma gis fa ay xeetu kéemtaan yoo xam ni yàlla mësu ko woon benn mbindéef li diini diinan yaa fawzan lana te di nga ñenn yoon Cheikh Mouhamad gannaaw ba yàlla ràññaanee ba mu indi ko ci moom ba mu gën a jege xalak xocc danaa fa ca dallee fa kaana xaaba xaw seyni aw àddina mu ne loolee tax lii ñu am tey ñu am ko aw xun mun ci koom koom te goo xam ni bi salaate naa ci julli ya ci julli ya yi ca amoon mu ne lii nag hadiyatin min al samaayi haza min karim mu ne yii ñu am ci ay xeetu teraanga ak i teddange ak i xéewal yàlla nga ko def ci barke Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam ba li ñu am yépp ñu am ko ci xeetu teraanga ak teddange waaw maanaam ci gàttal yàlla bu yëg bu rañaanul woon yoon cal Muhammad alayhi salaam ba ca moom mu jox ko lam koy jox kon nii ñu mel tey ci tedd ngeeg teraanga ya ca aju duñu ko am waaw mu ni fa salaatun wa ramadaanu saw kazaakal xajjun fal baaqiya shahaadataani haza shahaadatullahi la hoo minal mubinil xikami déggal baat yooyu tabarakallahu waaw belaw aw salaatin aw matxin aw baytin baat yaa ngoog mu lii di julli lii di julli ak zakat ak wóor weeru koor niki noonu ak aj màkka mu yii ak baatu seede yi julli koor natt azaka ak baatu seede yi mu yii yëpp yii yëpp nag ñeel na ñeel na tedd ngay sayyidina Muhammad alayhi salaatu wasalaam waaye jaaree ko ci minal bubinil xakimi ci yàlla mi xarañ ci yàlla mi moome xarañ borom xarañte gu rëy mooy subhanahu wa ci déggin rek ci déggin rek moom yurtal Muhammad bu jur woon ak moom kon lii di julli lii di zakat woo weeru koor aj aj màkk ak baatu seede yi du am te nekk lii li li cheikh bii wax moom la yàlla moom la yàlla tabaxee islaam waaw moom la yàlla tabaxee islaam mooy juróomi ponk yi nga xam ni mooy kenn lislaam waaw kon yàlla xarañteem kenn mënu ko natt ba weesu ko waaw mu ne yonent Muhammad alayhi salaam imaamun mooy imaam bi bi salaati bi salaatihim inda masjidi lazi qala za rabbuna bi suratil isra'i zalika ha min al mu'jizati al cheikh bi wax ni moom Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam mooy imaam bi nga xam ni keroog bam rañaani jee ba yéeg ci juróom-ñeerul asamaan ba romb pays yàlla ya yonte yenent yi yépp cent vingt-trois mille neuf cent quatre vingt dix daje nañ wa taqaddamta li salaati fa sallaw kulluhum muqtadin wa anta al imaamu njool Makka wax ni Cheikh Ibrahim wax ni keroog ba yonent yëpp daje yonent yëpp ba nu daje cent vingt trois mille neuf yëpp ba nu daje njool Màkka moo leen jiite ñaari rakaa yàlla moo ko wax de Cheikh Ibrahim nettalil nu ko waaw keroog ba nu daje moom njool makka moo leen jiite wax nañ ni wax nañ ni. yonent Yàlla Ibrahima moo noddu yonent Yàlla Moussa moo liqaam njol Màkka moo jiite ay waay booba la julli booba la jullee que riche te màgg lool tabarakallahu foofu lañ dajee foofu lañ dajee gaa yépp foofu lañ dajee njol Màkka jiite leen loola bokk na ca murjiza yu màgg yu rëy ya te yonent Yàlla Muhammad am ko yal na yàlla fayal ñu ko sunu sunu cofeel ci moom yàlla na yàlla dolleeku yal na yàlla dolli ko mu ne fa diinuhu bi diinihim daamat lana fi diini uxraana za xaq lana min qadisihi aw kitaabi rabbuna ala alfahami ba tey mooy wax de mu ne diineem ja moom Seydina Muhammad diineem ja ci diine moo gën a mat ci mboolem diine muhammadan xayral bariyati ata diinaka qad daalahu kulla fata la sëñ Babacar wax eh, ci la Isa yàlla ci xeetam la ko yónni Muusa kazalika Ibrahim noona Nuux noona Lóot noona Ayoba noona comme ci doon yàlla am na fu mu la yónni am fu mu yem yow waaye njool màkka diineem ga moo gën a mat ci mboolem diine yi waaw diine yépp nag diine yépp ba yàlla jox yoon ca Muhammad moo gën a mag ci diinam ya waa moo loo cay déggee da ci déggee ni mboolem yi bu fi ma sa ñëw rek njool màkk nga ngay annoncé ji moom ngay annoncé waaw mboolem diine bu fi ma sa ñëw rek njool màkk ngay annoncé ni mi ngi ñëw moo tax diineem moo gën a mag ci diine diineem moo gën a la ci diine yi diineem moo gën a yell ci diine yi waaye diineem moo gën a kawe ci diine yi te moom la yàlla jël jox ko yontal muhammad moo tax yàlla wax ni in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni man daal bu ngeen bëggee ma bëgg leen bëggal leen ma yontal muhammad alayhi salaatu wasalaam diineem moo gën a sax ci diine yi te moo ci gën a mat waaw te lu dëgg nag waaw te diineem yépp nag te diine yëpp nag bii moo ciy dëgg za xaqan lana tabarakallahu kon nga gis ne ci diineem ca la alquran ñëw ca diineem ca lu bare bare bare am tabarakallahu yàlla na yàlla dool suñu cofeel ci moom ba tey cheikh bi wax ni lawlaahu maa ruqiya allahu samawaati shaatiatan baasitan ala saqreni insun wa jinnun wa gayrihima haza gayatul karami mbokk yi dégg ngeen yu neex yooya déggal matxa ya neex yooya waaw mu ne bu dul woon ak yonteel Muhammad bu dul woon ak yonteel Muhammad bu dul woon ak moom maa fil bariyati ma lam tasqihi karaman min nuurihi rabbana waaw sama am Seydi Haj Malik wax na ni bu dul woon ak Seydina Muhammad dara du am anta lazi lawlaahu maa xuliqa amruhu kalla wala xulixal wara lawlaaka bu du woonam njool màkka waaye mbokk yi ma ne daa du am dara du am ci barkeem moom yonent bi ci la lépp amee waaw moo tax Cheikh Ibrahim wax ni lawlaahu bu dul woon ak yonent yàlla Muhammad maa ruqiya allahu samawaati mu yàlla du sëpp asamaanu juróom mu tiim ñu te du mës a daanu ana ku mës a dégg fu ne asamaan kat ma wadd suñu kaw kenn mësu koo dégg bu dul woon ak yonent yàlla Muhammad te asamaan moo ne de inna rabbakum la lazi xalaqa samawati wal ardi fi sittati ayamin summa stawa ala al arshi yughshi layla nahara yatlabuhu hasisan wal shamsu wal qamaru wan nujumu sakharati bi amrihi ala lahu al xalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin kon bu jul woon yonent Yàlla Muhammad alayhi salaatu wasalaam bu jul woon ak moom yàlla ju sëpp asamaan asamaan tiim ñu jant ne ca biddéew ne ca weer ne ca lépp ne ca te asamaan doxoo ba dégg fuñ ne waa Tëngéej kat seen asamaan sa daa wadd amagul de xanaa ko ñu ne moment africain yi xëy na seen asamaan mën naa wadd waaye doxoo doxagoo fenn ba dégg ni asamaan dëkk sangam wadd na mosoo koo dégg di nga dégg nag tremblement de terre di nga ko dégg di nga dégg kat géej ga toxu na dinga dégg nangam ak sangam waaye doo dégg mukk fuñ ne ne asamaan gi moo wadd bërëb sangam mosoo koo dégg. waa te li ma lépp nag ma nga aju ca kaw asamaan teewul yàlla ci barke yonent Yàlla Muhammad ci barke moom yonent Yàlla Muhammad ca la ca la yàlla sëpp asamaan mu tiim ñu te mu sa laal suuf waaw mu ne yemu ca nit ak jinne ak ñeneen ñu dul ñii xaytul karami ñi nga yàlla nga leen amalee ca teg ngay Seydina Muhammad waaw ñi teg jinn nag ñi teg jinni ak leneen lu dul lii ak leneen lu dul lii yàlla nga ko amalee ci bàkki njol màkk xoolal mu indil la nag mu indil la ay ay leeral ay leeral mu ñu la al amlaaku wal jinnun wal insun wa tuyuur wa dawaabu waaw mu ne amlaaku yi malaaka yi wal jinnun ak jinne yi wal insun ak nit ñi wa tuyuur ak njanaaw yi wa dawaabu ak daaba yi li samp yi mu ne yépp nag kulluhum yii yëpp yusabbixuna allaha ña ngay sàbbal yàlla ataala yàlla mi kawe mi xaaliqina yàlla mi ñuy bind bi majdihil karami ci tedd ngay sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ay bu dul woon ak moom ay bu dul woon ak moom yemu ca de mu ne wa bihi sakana allahu kullama sakana fi alaalami al insun aw gayriha wa bihi xuliqa alxalqa falxalqu kulla li takrimi ak mën a riime tabarakallahu xam naa bayit bi rek laay indi tàggoo ko jotaay bi waaw mu ne bihi ca daraje njool màkka moo ne ba ngeen ko bàyyi woon de Cheikh Ibrahim dana topp bihi bihi bihi bala daloon Maodo ba Maodo ne Maodo daañ it naa ba xul kulul baraaya loole amaana moo ndaroon dal sang bii njaay waaw waaye rek gis nga mu tënk ko ci xam-xam waaw comme ñun mokkal dafa ñoo tëlee gi mu tënk ko ci xam-xam pour ñun buñ koy jàng mu bañ a bare ci ñun ba mokk ki dañu të moo tax xol fi mu ko tënk man wa bihi ci darji si jëna muhammad sakkana allahu la yàlla dalalee kulla ma sakkana fi alami insi ci darajey si jëna muhammad la yàlla dalalee mbooleem li dal nag géej gi mbokk yi bu nee tekk tekkaaral dawul ut si ñu mi ngi amee ci barki si jëna muhammad benn ngi noonu asamaan si asamaan si bu jekk saa yu wadd suñu kaw mi ngi dalee ci barki njol màkk mbokk yi mbokk yi montagne yi bu jekk saa yu daal di daanu dal suñu kaw mi ngi amee mi ngi dalee ci barki njol màkk mbokk yi volcan yi bu jekki bu jekki saa dal suñu kaw ba lakkuñu mi amee ci barki màkk mbokk yi mbokk yi bu doxul ba suuf wëlbatik suñu kaw la newoon ci kaw nekk ci suuf la newoon ci suuf nekk ci kaw loolu mi ngi amee ci barke njool màkk alayhi salaatu wasalaam moo tax déggal alim li insi mëndu nit la wax mëndu nit kon boo ne mëndu nit ñi rek mboolem li dal mboolem li dal rek yàlla nga ko dalalee ci barke njool màkk alayhi salaatu wasalaam waaw mu ne aw ay ak yeneen sax yoo xam ni mënuñu ko tudd te mënoon te mënoon ñàkk dal waaye yàlla dalal ko ci dalu njool màkk alayhi salaatu wasalaam mu ne wa bihi ba tey ci barke Seydina Muhammad xoli xal xalxa <laughs> ah, dégg baat ba xoli xal xalxa fal xalqu allahu akbar ki mën a bind te mën a way waaw ah, mu ne ci joon màkka xoli xal xalxa fal xalqu xuli xal xalqa la yàlla bindee mbindeef ñi fal xalqu mbooleem mbindeef ñi nag mbooleem mbindeef ñi yàlla ngi leen amalee ci barke tedd ngay darajay martabay mbaaxu sayyidina Muhammad alayhi salaatu wasalaam kon mbokk dañuy yemal ni fii ak yéen incha allahu taala ba yeneen ni daanañ ko gën a yaatal waaye yal na yàlla fayal ñu ko incha allahu taala ci am daax yi neex yi mu ñu mu ñu indil incha allahu taala yal na yàlla fayal ñu ko ci barke Sidina Muhammad alayhi salaatu wasalaam di leen yëgal tàkkusaanu Baye Jamil bi am fii incha allahu taala ci Tiwaawan Pël waa xayru wal na di ko amal. incha allahu taala ca Serigne Mansour Sy Djamil jàpp bés ba dafa ñëw mi ngi am incha allahu taala le 19 samedi bii di ñëw incha allahu taala yannu yàlla yóbbu ñu cëg jàmm waaye tamit lii ma sol tey eh, muy mbubb gu rafet gii sol mi ngi bàyyi ko fële ca Dame Mbow Tailleur fële ca Caaroy marché Waranka incha allahu taala 77 923 15 21 seeti ko gaaw mu jox la ci ci mbubb yu rafet yi ak yi ko gën a yell ci garab mbubb ak mbubbu góor ak mbubbu jigéen ak mbubbu ndaw ak mbubbu mag boo demee ci Omar dana la ko ñawal ñaween bu rafet te du cher te dana xéewale lii moo seen émission na bi tey ñu indi leen lenn ci xasida mag ñi bu euh, buñ nee mag ñi rek moo ñu fi toogal Guinée mu Cheikh Ibrahim Khalil mu yaa faama moom la xaaju soo sa njaay ñi jaajëfal mbooleem ku nekkoon ci caméra yi yi di jaajëfal waa di leen yëgal di leen yëgal ma Seydina Mahamad alayhi salaam njukkal maam Abdou Aziz Dabakh di am fa fële ci Tivaouane Peulh le set décembre ñu ngi leen ko yëgal asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.